asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jéggalu waa jotaay bi yépp dama am kàddu yu ndaw rek yu ma bëgg a yëkkati ci kanamu mbooloo mi yëpp seedeel leen ko waaye xamal leen koy maa ngi jéggalu baax ci taxawaay bi sax seen kanam waaye sëriñ seexu naa mii day sagu badar gépp lenn képp nag moo tax ma wax ko mooy taxawaay bi mu am ci dongay daara yi nekk badar ndax dafa am aaya bu yàlla wax ci alxuraan ci ay jaamam yoo xam ni bi muy wax nañ leen di jox da caa boole ñooñee mu ni yaxsabuhumul yaxsabuhumul jaahilu agniya min attaafuf soo leen gisee sax dangay ngay jàpp ni lépp lu nit di war a am ci àdduna am nañ ko munoo xam seeni soxla te daara ji mu sos fii ci badar néew na nit gis daara ju mel noonu ndax ñun ñu ngi dox ci daara te xam nañ li xaw moo tax may sàkku ñi nekk ci mbooloo mi ngir yàlla rek ak alxuraan kenn ku nekk làmbal ma junni ci poosam muy téeméeri junni ñu def ko ci daaree badar ji laajul kenn leen demul fenn kenn di ko xamal soxla xale yi kenn yalwaanu ci kenn fay ko benn dërëm te tey mën nga fee cité ñu bari ñoo xam da nga leen di woo fii doo leen laaj ci alxuraan lu ñu xamal maa ngi sàkku ci yéen kenn ku ci nekk mu làmbal ma junni ci poosam ñu def ko ci daaree badar ji ngir yàlla ak alxuraan jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ci jëf ji yàlla na leen ko yàlla fay ci barke alxuraan ci barke alxuraan xam naa sëñ Bass daa xër rek ngir jublu yéene ñëpp ngir jublu yéene ñëpp rek am tawféex te loolu sëñ bi daan na wax ni loolu rek moo di ak sëriñ fexe ba jamono ju ne ngay sos ay jubluwaay yoo xam ne bu ci nit ñi def si defee seen alal jariñ loolu moom jàngale sëriñ bi loolu moo tax mu daan wax ne lu ma leen woo rek mënal naa ko sama bopp dëgg la te lu ma leen woo mukk loo xam sama yittee bopp la mm. lu ma leen woo yittee lislaam la ak yittee luy doxal yoon loolu ci laa daan woote te bu ma ci wootee la ma leen di woo mënal naa ko sama bopp bu ma leen ci woowee ngir bëgg leen a jariñ la ndax loolu mooy dox bi sëriñ bépp sëriñ boo xam ne amoo loolu say taalibe dañuy wuti ci feneen ay kóllëre loolu noonu la noonu la yëfi di doxee ah, sëñ bi nag damaa wax loo ni soxna Faama Gueye di magam di doomi sëriñ bi eh, woy eh, jëkkër soxna borom këram dafa wàññeeku lu matul ñaari weer ci ginnaaw te mu yàgg daan bokk ak ñun eh, gàmm gi danga xam ne dal bii moom moo ko daan taxawee waaye ren jii looloo tax ba looloo di gàllankoor muy sàpp ci yéen ñëpp ngeen ñaanal ko borom kër bi nag tur wi mooy soxna Matar sëñ Matar sëñ Matar mm-hmm. sëñ sëñ Matar Thian mooy ki nga xam ne mooy wàññeeku ñuy sàkku yéen ñëpp ngeen ñaanal ko ah, xam naa wax ji am na loo xam ne sax loolu ma sëñ bi doon def la waaye damaa gis loo xam ne day ñëwak ak a ñëwaat ci wax ji gàmm badar jamono ju ne te tey jit am ku ma ko laaj ci kër ga di ma laaj mel ni benn journaliste di ma laaj lan mooy seen secret ba tax dëkk bi mel nii ak yooyu xëy na li mu gis mooy eh, badar dëkkuk àll la waaye àllewul waaw yaakaar naa dëkkub àll waaye ku fi gis di nga gis ni àllewut loolu nag ay yitte moo tax mu mel noonu yitte yooyu nag bu amee secret weesu lii ma leen di bëgg a wax képp koo xam ne dangay am dara nga fonk ko mu nekk lu foor ci yow te xëy na waxtu moom ni ni ko yàlla demee mooy kenn ku ne amu ci loo lu doy ba boo fi jógee di nga fi bàyyi naal boo bëggee sa naal yooyu di wéy ni ngay doxale da ngay doxalee suñu wayjuran ni mu doxale woon ak ñun moom nag laa leen di bëgg a wax nam doxale woon mooy dafa fekk ba dafa fexe ba ñu xam ak ak bëggam xam ak bëggam xam ak bëggam nag du rek lum ñuy wax waaye da koo jaral mu sos fi daara dajale fi doomam yépp di leen won ak bëggam wan ni leen dëkk bi rekk laa bëgg bëgguma leneen baral rekk moo ma ñor lee feneen ñoruma fu ma demati gan fii laa dëkk ñibbisi naa lii la ñu doon wan fu ne muy joxoñ ni fii nangam war na fee nekk fii nangam war na fee nekk loolu noonu la ñu daan def ak ñun suñ kanam dooy waxi kase nag waaye daa jëf daa jëf ñu koy gis loolu nag mooy secret bi nga xam ne lépp loo xam ne bëgg nga ko mu sotti ci àdduna nga tàmbali ko te fexe ba sa njaboot xam sa bëgg ca loolu ba mu wér bis boo loolu amee bu neexee yàlla boo fa jógee lu mu yàgg yàgg dinañ ko dinañ ko def waaw loolu daal mooy li may tontu ci loolu waaye incha allah latu mawlidin nabi laylatu maxwiriya bi wa tuhrisi taastumi laylatu mawlidin nabi laylatu mahriya bi laylatu mahwitahabi wa tuhrizi taastumi بحنجات وفلاح مع سرور والنجاح بها الربات وفلاق محن دفاع حمي سرج بتنغ دلوات ci yàlla mi di say xalaat te may ñu jibu mu yokku naatal xarnu yi sëriñ bi te nga delluwaat ci yàlla mi di say xalaat tameñ mu jiibu daawaat mu yëkku naatal xarnu yi jógal taxaw ta ba mu waat ndigal lu rëy nga xasida yi di feeñalaat fugrasi Bamba xarnu yi jógal taxaw te ba mu waat ndigal lu rëy nga yeesalaat xasida yi di feeñalaat fugrasi Bambam xarnu yi yow yaay xalifatul xadim jëfal nga réew mi ñépp yéem ku nekk naa la yaay xadim leeral nga mboolem xarnu yi tax nga basuut na del siwaat ànd ak i saañu falfalaat bul fàtte sëb yi lawlawaat ñu am njariñ ci xarnu yi di njiital sunuy kàddu sant yàlla bu baax a baax sant gi nag day cantuk xol di cantub jëf kàddu yu doogay ñëw li ko waral it yu bare bari la yu ñu mënta lim suñ boroom dafa wax ni bu ngeen dee lim ay xéewalam yi mu leen defal mënu leen koo jeexal kon nu ngi sant bu baax a baax te ñaan suñ boroom mu yàggalal nu fi sunuy kilifa ka ca jiitu di Seexuna cheikh muntaxa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu xaadimi rasul ak sunu kilifa gu baax gi nekk sunu ginnaaw mbokk yi kàdduy cant la ñuy njëkkee kàdduy cant yi ñu jëmale ko ci sunu kilifa gu mag di cheikhuna cheikh Mouhamadul Muntaxa ñi fi nekk doyoon nañ doyoon nañ ko sëkk ay ndaw ndax ay taalibe ay taalibeem lanu yu ci raxul dara waaye bu ko bis bi jaralee mu yabali ndaw loola kon ak cant la gu war a jóge ci taalibe yépp jëmati ci moom li tax ma wax loolu mooy bi sëriñ bi di taxawal jumaa ji sëriñ Saliou daa sàkku daa sàkk ndaw dem ba koy bëgg yabal ni ko duma fa yabal ndaw ndax yéen ñu fa nekk mat ngeen ko sëkk Cheikh Abdoul sëriñ Mor ak moom ñoo ko taxaw kon bu sëriñ bi defee lu mel noonu kàdduy cant war naa jóge ci sëriñ bi dellu ci moom yëmul ci moom sëriñ siidi moom sëriñ Abdul Ahad xam na ni ak njabootam dinañu fi ñëw waaye dafa sàkk ndaw loo xam ni ndawul boppam la mu ñëw teewal te ñi fi ñëw ñëpp ak njabootam ne sëriñ aboo ngi ne moo ci mujj te léegi la fi ñëw te jiituwu fi sëriñ Abdul Ahad a ngi nii ci biiru njabootam la bokk te wóor na ko ni dina fi nekk Serigne Moustapha di rakkam di xaritam di taalibeem mook ñun daanaka ñoo yenn kon loolu lépp wane seenu cofeel ci barab bi ak yitteel gu leen mbir mu yitteel rekk lay doon waaye nag bu amee faw nun ñii taalibe yi ñu sant ko yëkkati kàddu yi ba ñëpp yëg Alaaji Tàkku Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ku fi yàgg ñëw xam nga ko léegi la fi jóge te it yi mu yi mu bàyyi ba ñëw fii su su su toogoon fa mu toog wax ni yi yëgle ko ngant lu mat sëkk la waaye ngir wan nu ni mbir mi mbirama moo tax doonte fukki minute lay doon sax mu ñu ànd kook ñun kon kàdduy cant yooyu ñu mu jugee ci sëriñ bi mënee su koo waxee noonu waaye dañu koy jéem a jàllale rek képp koo xamante ni saw tur nekkul ci kàddu yi ma tudd na nga xam ni tur tur yi moom sëriñ bi jaar na ci kenn ku ci nekk ak taxawaay bi nga ci am sant nañ la ci bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Amin sëriñ Maam kàddu yi rafet na lool waaye loolu laa kàddu yooyu yàgg na ko fi yëkkati te waxtu wu nekk mu mel ni mënut ñàkk kon kàddu yi sant mënta ñàkk donte ci biir kër gi nga dëkk lépp jaxasoo waaye kàddu yi cant it mënta mënta ñàkk jóge ci kër gi delluwaat ci sëriñ abibu xam nañ ko xam nañ ay yitteem waaye terewut bis bi bu ñëwee bu ñëwul rek ngant lu mag a mag lu rëy rëy la kon moom dong bu ñëwoon doy na sëkk sëriñ baara moom dong bu ñëwee doy na sëkk kon bu ngeen àndee ak moom yéen ñëpp dafa am lu muy wane loolu nag da ngeen koy jëmmal rek waaye xamoon nañ ko leer leer nanu àndewuñu àndewuñu bis àndewu leen ak sëriñ bi bis bu ngeen toogoon bis bi jot ngeen toog yaag Cheikh Abdoul Ahad mbakke mais ne ni sëriñ bi kat dañoo am kii ku fi nekk mën na leen fee teewal ndax seen ndaw lañ war a doon nun nag ñoo doon dara lu tali bi sëñ Tuubaa kese lu nu waaye tudde lu tali bi sëñ Tuubaa bëgguñu mbokk yi ñu fi ñëw mëne su leen a sëriñ euh, Alaaji sëriñ Mbacké moom sëriñ Cheikh May mu sëriñ Moustapha May ak njabootam ak njabootam a ngi fi ñëwee nañ fi ñaari cër waaye dañoo ñun dañu li ma waxoon léegi dafa mbub moom mënuñu koo summi mu mbubum taalibe gi moo tax tur cër woowu rek la ñuy jël ci yéen ñi ci des nag danoo bokk ñoom bis bi kon kàddu yi kàddu yi ma yëkkati muy kàddu cant dafa mel ni kàddu yooyu ñoom ñoom laa koy waxal muy képp koo xamante ni taalibe nga képp koo xam ni ci njaboot gi nga bokk kàddu cant yii ñu yëkkati ci biir kàddu yooyu ngay dugal sa biir sa biir cant Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ni moom la fi sëriñ Serigne Dame Abdourahman Mbacké yabal ak ñi mu àndal délégation bi mat na sëkk taxawaay biit gis nañ ko mat na sëkk li mu wax léegi nag dafay lu ama am solo mooy li yitteeloon sëriñ bi bis bi mënoon na ko tudde màggal mënoon na ko tudde cant mënoon na ko tudde tur yu bari yu ñu miin ci yo yoon wi waaye tuddul noonu gàmmu la tudd waaye nag gàmmu gi boo fi ñëwee di nga xam ne njabootu sëriñ Tuubaa ñoo koy def loolu moom lu leer nañ ñi lay doon di nga xam ne ñii ay jurit yu wér lañ waaye nag càllale gi nga xamante ni ci lañ ci lañu jokk muy xaadimu rasul utuñu dara utuñu utuñu dara di ko ci doy doy na sëkk moo waral bis bi bi ko sëriñ bi yeesalaate at mu jot mu seet kenn ci mag ñi tudde ko ko ngir jàngal ñu ko loolu it nag loolu dong mooy tur bi amul leneen loolu it bi ko sëriñ bi tàmbaliwaatee dafa gis ni mag ñi euh, ñu ngi bëgg ñu ngi bëgg a sori ci suñuy bët Cheikh Abdoul Ahad bi mu fi jógee léegi mën naa am ñi ko fekke mën nañ ni yàggut waaye ndaw juddu na fi ginnaawam am fi soxna yor fi njaboot te fekkewul jaboonu Cheikh Abdoul kon ñooñu te te ñi fi mujj jógee ci la bokk kon ña fi jiitu nag nga xam ni bañ fi jógee léegi yàgg na ñooñu di leen fàttali lu fa farata la ci kon loolu rek mooy mooy solo tur wi at mu jot ñu di ko def ren mu nekk ci mu tolloo ak Cheikhuna Serigne Ibrahim moom Xaadimu Rasul li nu ci sëriñ bi wax doy na sëkk alhamdulilahi rabbil alamin kon kàddu cant yi ni ma ko waxee dafay jëm ci kilifa yi nun mbokk yi sunu kàddu cant ñu dugal ko ci kàddu sëriñ bi taalibe yi ñu booleel sunu cant dugal ko ci cantu sëriñ bi beneen kàddu gi ci topp mu jëm ci ndax fi ñu toog média yi sëriñ bi tudd na ko léegi RTS 1 mu ngi fi Walfadjri mu ngi fi groupe GFM mu ngi fi APS mu ngi fi Tawfekh production ak ñeneen ñu ngi fi ñooñu nag li ñuy jël dañ koy tasaare ci àdduna kon bu ñuy wax ak ñoom am na kàddu goo xam ne dañ ko war a jëmale waa àdduna kàddu googu nag ci ñaari tomb laa ko bëgg jëmale benn bu njëkk bi moo di seetlu nañ ni Ndakaaru boo fa yoree fukki million ak ni fukki million jafe bëgg bëgg kër mënoo ko am pàkk bi am te pàkk ba fa nga koy fu sore sore loolu nag li muy tekki moo di dafa am lu ñuy wax pression démographique maa nit ñi ci boppam dañoo jóge fa ñu dëkkoon fay seeni cosaan ñoom ñëpp jubali benn barab fu ñëpp jubali nag mënta maanaam bu fekkee ne ñiy ut ñoo ëpp li ñuy joxe faw njëg yi yokk ak yeneen ak yeneen waaye boobu benn la ci explication bu ko defee nag kon ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal mbir yi nekk ci seeni loxo ñuy sàkk ci ñoom ñu dimbali ñi nekk ci yeneen région yi te jàpp naa ni ñaari mbir a ngi yoo xam ni bu nu ci góorloo dina fixé doomu adama yi ci fa ñu nekk bu njëkk ba mooy nit yàlla dafa ko bind muy doom muy loo xam ni bindaafoon boo xam ni dafay dox day yëngutu kon dox ci doomu aadama la bokk faw ñu jàppandil ko bu bëggee dem ci barab dem fa bu bëggee génn fi mu nekk génn fa loolu dafay poser problématique problématique lu ñuy wax infrastructure faw ñi ñi ñu jiite ñu góor góorgóorlu ci barab yi nit ñi nekk ñu fekk leen fa ak yoon loolu du du lu war a ñaan ñi képp koo xam ne nekk nga fi loolu dafa bokk dafa war a bokk ci priorité yi gën a mag ci yow ndax nit ki bu fekkee ni fi mu nekk bu fa bu fa déparé war a liggéey fu mën di doon ci Sénégal bu defee waxtu egg fa mu jëm yaakaar naa toog ci biiru njabootam bu wàccee xam lu njabootam nekk yaakaar naa kenn du ko bañ te fukki million ku ko yor toog ci fa nga dëkk yaakaar naa mën ngaa tabax loo mën a dëkk kon ñi ñu jiite ñu góorgóorlu dimbali nu ci dimbali population bi ci ñu yombal li ñuy wax infrastructure loolu nag nit ñi dañ ciy néew doole état rek moo ko mën a def beneen problématique infrastructure bi nga xamante ni dafay fixé doomu adama yi mooy li ñu wax ndox ndox nag ngir naan waaye ndox ngir bay ndax nit ñaa ngi wax mbay fii ñi fi nekk ñëpp ay baykat lañ fii ñu nekk dëkk yi ñu wër yëpp ay baykat lañ waaye ku ci sam mbay mën a dundal ren ba déwén néew na fi kon nag ñàkku ñoo bañ a liggéey waaye mooy yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee muy doom te ndox mi ba waxtu wi nga ko soxlaa waxtu wi gàncax gi soxlaa ndox mi nga mën ko ko jox loolu mënuñu ko defal seen bopp état moo leen ko mën a defal kon loolu képp koo xamante ne yaa ngi fi nun nag soluñu couleur politique sañuñu ko waaye dañuy wax ngir luy jariñ doomu aadama yi kon képp koo xamante ne yaa ngi fi bokk na ci priorité yi ñu war a góorgóorlu mooy infrastructure nit ñi fi ñu nekk ñu fekk leen fa waaye dimbali leen ba ndox fu ñu nekk mu mën leen fa fekk muy ndox mu ñu naan waaye it ndox mu ñu man a bay te mu doy sëkk ñaareelu problématique bi nga xamante ni senegal yëpp la yitteel moo di nit ñaa ngi wax ni gone yi dañuy daw dugg ci gaal yi xaruwuñu phénomène la boo xam ne explication yu baree bari la am ñun ñi te te taxaw di wax ni nañ ko bàyyi taxul nu ba ko loolu wax wax dafay war a am njariñ li ngay wax ñi ngay waxal mu wóor la ni mën naa dugg seeni nopp waaye nit ku nit ku xëy cent franc të ko mu yaakaar ni barab sàngam bu fa demee mën a amub junni nga ne ko doo fa dem ndax nangam ak nangam ak nangam yaakaar na loolu boo waxee day dugg fii génn fa kon problématique bu complexe la lu jafe la waaye jàpp naa ne mën na am ay xalaat yu ci juddoo ñi fi jiite ñii génn di dem ci réew yooyu réew yi ñu jëm dañ leen soxla loolu nag waxuñu leen ko waaye ku xam Europe xam nga ni secteur hôtellerie am nañu problème mu main d'œuvre bëgg nañu ñu leen liggéey te mënuñu koo am boo demee ci barab yu bare bari ci monde occidental bi noonu la mel kon bu nu ubbee seen bunt ngir nit ñi ñëw ñoom ñoo ko ubbi waaye nag bunt bi ñu ubbi baaxut liñ ci jublu mooy bu nit ñi ñëwee. du ñu leen fay seeni droit di leen liggéeyloo loolu nag ñun ñi nga xam ñi ñu jiite mën nañ koo faj mën nañ koo saafara nanu dem ci réew yooyu waxtaan ak ñoom ñu proposé jeunes yi ay contrat contrat yooyu képp koo xamante ni signé nañ la contrat wu un an nañ la fay sax 400000 francs dëkk yooyu ëpp li ñuy fay ëpp na loolu waaye nañ la fay sax 400000 francs 400000 francs nit ki dem foofu am fukki at ak fukki weer ak ñaar wala ñaari at dellu siwaat moroomam dem mu am lu mu tàmbali liggéey loolu yaakaar naa ne ay solution la te li ma wax ni benn xalaat la rek ci milliers de pour possibilités yu man am ñu ñu jiite ni ñuy dimbalee suñuy population mooy dem te fa ñuy dem muur leen ni soxla nañ ndax li ma xam man lu néew la ci ñoom li ñu xam ndax ute yi ñoom awma ko xam na ni dañoo soxla ndaw yi nekk fii nanu leen dimbali ñu dab dog buumum njaam gi nga xam ni moom la système bi fas yéenee continuer di ko doxal sunu ak ak sunuy ndaw réew yi yor plus de 60 pour cent ay gone lañ ñoom réew yi ñu yor ay mag a fa ëpp kon mën faw ñu jëfandikoo suñuy nit ci yan condition lañ leen war a jëfandikoo nag ñun ñoo ko war a décider loolu nag ñi nga xamante ne ñoo jiite suñuy réew ñoom ñoo ci war a xalaat gën cee góorgóorlu baax a baax kon loolu mooy page bi nga xam ne moom lañ jëmale woon mu ñëpp mën koo dégg li ci des nag mooy sunu mbokki taalibe kàddu yi mënta ñàkk mukk sëriñ bi kaddi kadduy e, soññe yu jóge ci sëriñ bi jëm ci yéen kaddu yi nag mooy fàttali leen ni dafa am lu nu fi indi te banu fi li nu fi indi te banu fi mooy jaamu yàlla ma xalaqtul jinna wal insa kon jaamu yàlla googu fu fu ngeen toogee sëriñ bi nee na mu ngi ci mu ngi ciy góorlu kem kàttanam waaye ci loolu rek la leen di la leen di ñaax loolu rek la leen di soññ mas nañ fee waxtaane nag tekki leen lan mooy jaamu yàlla yëmul rek ci julli ak woor waaye lu yaatu yaatu lépp lu ngeen di def na ngeen ci yéene te mu sell te ngeen fës yéene caa faj soxla soo xamante ni mënta ñàkk ci seen i yitte kon nañu góor góorgóorlu ci jàmm yàlla nanu góor góorgóorlu ci rafetal jëm ci sunuy moroom rafetal jëm ci sunuy moroom nag ni nu ko sëriñ bi tekkile mooy alxidma mooy lépp looy def nga jéem ci jariñ sa moroomum jullit ba noppi maanaam nga jiital ci njariñul sa moroomum jullit loolu nag njariñ sa sa sa moroomum jullit nag bu jariñoo ci say mbir faw nga jariñu ci waat ci ndax suñu borom dafa wax ni hal jazaa'ul ihsaani illa ihsaan ndax nit dina rafetal ba noppi ma fay ko ab safaan ñetteelu tomb bi moo di nu xam ni àdduna kun fayakun suñ boroom a ko am moo ko sañe jëfandikoo waaye donte day jëfandikoo kun fayakun bi mu nammee def yonent bi sallallahu alayhi wa muy ab yonent kun fayakun jiitu na bu yàgg-yàgg waaye diggante ba mu ba mu ba kun fayakun amee ak bi yonent bi di nekk ab yonent ay yonent yu baree baree bare jaar jaarale jaarale na ko ci ay maam yu baree baree bare ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doog doon ab yonent bi mu doonee ab yonent it bay laata muy mat sëkk ba li mu soxla yépp nekk ci kanamam coono yu baree baree baree bare la ko jàll loolu li muy tekki moo di nit kii li muy wut na leer ci moom nun li ñuy wut mooy nekk ay taalibe loolu leer na yoon wi ñuy jaar ngir am ko leer na ndax sëriñ bi bind na ko ba waaye nag boo ci tegoo fawu nga nangu muñ waxtu wi muy laaj ngir nga egg ci fi nga jëm li nga bëgg moyens yi koy def lépp bu nekkoon ci sab loxo nga fas yéene ko sottalal mënta sotti mukk lu dul temps bi mu laaj fawu nga def kon ndaw ñi ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax xam ni li nuy wut lu mu baax a baax fawu mu jël waxtu wi mu laaj kon ñu nangoo muñ nangoo néggandiku te tegu ci yoon bi ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dalina amin kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu leen di fàttali ne lii ñu leen di fàttali ni lii jataay bi ñuy gi yitte ji moo am ay gan am ñu war a saafonteel te ñu ci bari mënuñoo fanaan ci barab taalibe yi ñoom dañ fee war a fanaan am na ci kóllëre yoo xamante ni sañu ñoo ñibbi waaye ñooñu nga xamante ne jataay bu yàggee day jafe ci ñoom ñoom lañu defal jataay bu ko defee yu baree bari yi ci bëgg a dugal li tax ñu koy bëgg organiser loolu rek la képp ku fi yëkkati kàddu wala ku yéene yëkkati kàddu xam nañ ni am nga ko ci barab bi waaye ñëpp xajuñu fi bu ñu noppee ba minuit une heure dañuy dellu si waat ci bâche booba nag ñu nu neex lu nu neex ñu wax ba ba minuit ba une ba deux bi ma matin waaye nag ñuy bàyyi xel ci ñi li ñuy def dañoo bëgg mu mu mu am fu mu tegu loolu rek moo waral ñuy bëgg muy jaar ci yoon bëgguñu surku surku ndax nag tollu na foofu nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant nag bu baax a baax ci kàddu cant yooyu gàmmu gi def nanu ko ay ati ati at mënuma lim at yi ndax boo tàmbalee ci sëñ Mor sëñ sëñ sëñ Omar téeméeri at yi day day romb waaye man nag damay jéggi sa sëñ Omar ndax sañ sañc dëkk bii juróom-ñaari doom la tudde Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk bu la ko tuddee nga faatu keneen ñëwaat mu tuddewaat ko ba mu am sëriñ Mor Asta mi jur Alaaji sëriñ bi mu jël suñu Cheikh kon bu dee bëgg yonent bi sallallahu alayhi ak gëm ak gëm ko ak jëmmal ko foofu la tàmbalee woon kon bu doomam ñëwee di sëriñ Omar taxawal ak gàmm goo xam ne dañ koy gam-gamle gàmmu njaarim jaadu na mën naa nekk moo tax sëriñ bi ku fi masaan a jóge dem ca moom mu delloo si ba la wo xamal nu ni du barab bu war a gent moo tax lu fi nuroo woon gent yi jeex na bi fi jam jumaa ji bu fi jumaa ji sampo muy dox nag ba egg ci ñu war a génn ci ruq bi ndax njariñ li fi nekk dafa bari te yéene ko ñëpp sëriñ bi yéene na ko barab bi man ku ma xam yéene naa la nga ñëw ndax li fi nekk moo tax lu toll ci daaw ñu njëkk fee defal euh, dem ci administration ñu def fii lu ñuy wax euh, CLD bi nu ko defee yu bari juddoo ci yoo xam ni it defuñu ko woon ngir barab bi waaye dañ koo def ngir gox bi ren bi nu ko defee yu baree bari juddoo waat na ci te jàpp nañ lu ñu koy gën di def war naa romb niveau local dem départemental dem niveau régional ndax li ñu fiy def en terme d'investissement impact bi Badar am loolu dafay loo xamante ni administration yaakaar naa yeex na mu ñëw ba xam lan moo fi nekk waaye nag yeex yeex na euh, euh, manees na ko wax waaye léegi bi ñu jotee ak léegi wax dëgg yàlla yitte ju bare bari def nañ ko ci bisub tey mairie bi amal nañ leen ngërëm amal nañ leen sant ndax seeni moyens li muy néew néew lañu diggante woon ak ñun lu ci bare bari def nañ xam nañ ni def nañ ba def seen man-man kon loolu kat bu bu duggee ci barab bi te defalun nu ko ñun ñu ko def population bi lañ ko defal kon war kàddu yi war naa jóge ci kàddu yi cant war naa jóge ci sëriñ bi jëm ci ñoom loolu nag dañ ciy impliqué service état yi fi nekk yëpp service di d'hygiène yéexe nañ yéex gis nga ta ñi fi ñi fi ñëw bërki démb ñëpp gis nañu seen liggéey eaux et ñoo fi njëkk indi fi ay garab samp ko toppatoo ñi nga xam ne ñooy nopp ñooy nettoyer dëkk bi ñoo leen fi jiitu jéem nañ ci lañu ñu man donte loolu fekkoon nañu ci fekkoon na fi dëkkandoo yi nga xam ni waxtu wu jot ñoom xaaruñ ci woon kenn xaaruñ ci woon état waaye li tax ñuy sàkku état mooy dafa am yeneen yu fi état war a def moo tax ñu ñu leen di tàll loxo gendarmerie ñoom dañu am mention spéciale dafa waroon a commandant dafa waroon a nekk waaye yéen ñi fi nekk ñu ngi leen ko yób yóbbante kàddu cant yéen a ngi leen gis ci biir jataay bi taxawaay bu rafet rafet lañ fi am ñoom nag population bi ci boppam dañu leen amee njukkal ndax respect bi ñu am ci ñoom ñu ngi leen di ñaax te ñaan suñu borom loolu nga xamante ni moom lañ leen di bàkkee muy lu sax ci yéen muy ñoo xamante ne dañ fa nekk ngir service su doomu aadama yi service d'hygiène pré sous préfecture bu Baba Garage li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko kàddu yi xëy na suñ xaadim jaar na ci waaye dañ ci jaaraat rek ngir mu wan ñu ngir wan population bi nii ñii fi nekk de te teewal fi état kenn ku ci nekk la nga la nga la tolloog sa man-man jéem nga ko boobaa nag la ca des mooy niveau central lanu war a góor góorgóorlu def ko te ñoom jotul seen loxo loolu ñu ngi ciy talal loxo état deful talaluñ ko loxo nag ngir suñuy jëmm ndax fii bu ñu tegoon ay luy bënni puno ñu teggi ko dinañ ñëw ba ndax fii la ñuy fanaan si sëriñ dëkk waaye nag popit ñun badar dafa am lu ko taxoon a jug fii daw làqu lañ ko doon tudde ku sa bët mësaana xonq buur bëgg dal ci sa kaw ñu wóor la ni dañ laa fas yéene tooñ fii ngay daw te kenn du la fi fekk fii ngay làqu si kenn du la fekk loolu nag secret ba fi nekkoon jugu fi ba mu ba tey nit ñaa ngi fi ut si ut si barke di ko fi am nit ñaa ngi fi ut si faju aaja di ko fi am waaye ñu ngi fi daw daw si nag di fi làqu si ñu jàpp ne nag population bi fi nekk yëpp ñun ñoo leen war a yiir tël yi ñuy wax ak ndox mii su nekkoon ci loxol sëñ Cheikh naa kenn du ko ñu taxaw waaye nag ci loxoy état la nekk kon faw ñu tàllal leen loxo du lu ñuy du lu ñuy sàkku ngir suñu jëm waaw waaw wax dëgg yàlla effort yi moom am na waaye nag dañuy sàkku ni population yi ci seen bopp ci Sénégal lañ bokk te lii ñuy wax bu nu ko defee bokk na ci lii régler benn yenn ci problématique Sénégal parce que problème problématique logement problématique bu mag a mag la nit dina liggéey ba retraité mënta am lu mu jënde kër te moo ne kenn wax koon kenn mënu ko wax ne yaa kon nag ñu ngi delloo wàcce kàddu yi ndax li ñuy defloo dafa jafe muy bëgg war a war a résumer lépp ku ñu fàtte na nga xam ne xel mee fàttu rek waaye sëriñ bi moom li mu ëmbal ñëpp jëf ji wane na ko kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi